ñu ngi am mbégte dalal maître Abdoulaye Tine njiital union sociale libérale nekk itam avocat ci barreau bu Paris maître Abdoulaye Tine ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci matinal bi tey. waaw Fatou maa ngi lay fay di la jaajëfal ci dalal. ñu tàmbaleeg élection présidentielle bu 2024 yegg seegul maître wante euh, daanaka mi ngi ci kanamu actualité bi euh, ñu nemmeeku si ay déclaration candidature yu ñu bari jàpp ne dafa teel euh, rax ci dolli campagne te waxtu wi xëy na jotagul ndax ku mel ni Ousmane Sonko mi ngi ci sax fitna fi mu toll nii wante président Macky Sall itam di yëgle euh, ne moom it mu ngi euh, tournée économique yi ñu bari jàpp ne politiquement ci laxasu euh, pour yow lan moo waral langue bi xumbee nii te élection bi yegg seegul waaw boo xoolee nu élection présidentielle di dëppoo mën nañ jàpp ni ci li ma mos a ci Sénégal wala ci yeneen dëkk ci àdduna bi moom mooy élection présidentielle boo ko bëggee en tout cas pare dëgg waajtaay bi foog nga tàmbali ko au moins ñaari at ci ginnaaw donc lu ñu desee daanaka fukki weer ak juróom la donc mën nañ jàpp ni mënuñu jàpp euh, que dafa teel trop mën nañ am na ñi nga xam ne sax jàpp nañ ni maanaam mbir mi ñi nga xam ne ñu ngay soog a tàmbali dañoo yéex a jóg parce que Sénégal euh, dafa nekk dëkk bi nga xam ne ndaam rëyul trop mais pour nga matale ko Euh, day jël euh, diir et que boo moytuwul candidat yi nga xam ne jën nañ euh, boo dana ñu wër Sénégal lu lu ko matu au moins ñetti yoon laata élection bi di jegg si wala muy dëgmal donc ñu jàpp ni boo ko jàngatee ci noonu mënuñu jàpp ni dafa candidature yi dafa teel trop Euh, beneen bi aussi moom mooy euh, dañu ko seqal ci nga xam ne maanaam euh, kenn mënu la wax fan lay fëlee tey gis nga ko candidature xam nga ko mënatu la présenté Euh, mais moo gën a xam ne mënul présenter mais dafa continuer di jàppee sénégalais yi ay gune yu ndaw wala ay collaborateur am mu leen di jàppee gune yu ndaw parce que nee bu bu waxee ne day dem nit ñi dootuñu liggéey mel ni ñooñu matuñu wala dañu matadi parce que euh, xam nañ ni constitution bi daf ko tënk lu mu wax ñoom ci seen kanam la ko waxee donc loolu moo tax tey euh, kuñ ko siqal xam nañ ne boo moytuwul Euh, dafa nar a forcé euh, loolu aussi yóbbu nit ñu teel a tàmbali la parce que euh, comme saa waay mi ko seqal xamuñu moom fan lay fëlee donc comme ni ñuy wax ci wolof xoddeeku ndam ngay lakkale mais beneen bi aussi dafa nekk président bi nga xam ne maanaam daanax naka dafa nekk ci njeexteelu parcours am ak lu mu mënti doon day dem. mu bëgg ko mu bañ ko parce que constitution bi tënk na ko te askan bi ñoom nee nañ ñoo Euh, loolu aussi yóbbu na euh, nit ñi ñu jàpp ni aussi euh, deux mille vingt quatre moom dafa war a nekk tournoi bi nga xam ne en tout cas Sénégal dafa war ubbi woy bu bees ci histoire politique am loolu aussi mën na expliquer loolu maintenant li nga xam ne donc xaw bokkul ak lu doon gis moom mooy nit ñi jël ay oto di wër tournée économique yi moom loolu dañ ko mos di dénoncer euh, nit ñi dañuy ñëw xaar ba élection di ñëw loolu aussi luy wone ne rek moom dafa nekk ci ay tànk euh, présenter wu waat moom mooy depuis Abdou Diouf doon nañ ko gis bu président euh, bu donc bu élection di waajee dëgmal nga commencé inauguré di def ay tournée économique kooku campagne déguisée la avant l'heure loolu aussi opposition bi xam na ko ba tax bii pa mu teel a jóg en tout cas benn pàcc opposition bi di def anticipation mais loolu day dal di dugal dëkk bi ci benn climat wu campagne euh, alors que dëkk ci démocratie daa am nu mu laloo daa am nuñ ko organiser maanaam campagne euh, donc dafa am benn période gis nga ko campagne bu amee administration beeg service yeeg ni ñëpp léppay ralentir donc bu dee nag dañu commencé euh, loolu aussi day am njeexital ci liggéey bi ci kom bi et aussi ci dalu dëkk yi nga xam ne fala la nit ñi di dem boo euh, tax ma jàpp ni en tout cas euh, ndaam ku ci nekk c'est légitime nga war a wër dëkk bi waxanteeg say nit dañ ko war a def dans le calme euh, sans fësal ko yenn fës yi parce que euh, boo ko bu dee campagne saa yu la neexee nga jóg def ko daa donc campagne daanaka dootul am euh, période loolu day désacraliser même période du campagne électorale parce que période du campagne électorale ci démocratie benn période d'exception la entre guillemets bi nga xam ne day am benn régime bi nga xam ne dañuy nangu lii ñu bañ lii mu am ay dérogation donc loolu mooy expliquer en tout cas situation situation bi tey. Mm-hmm. fitna tàmbali see feeñ ndax nemmeeku tuubu Ousmane Sonko bi démb gis nañu li ci xew euh, muy ñi nga xam ne ñoo leen di topp ñaare way politique yi ñu naan leen gros bras est que loolu itam euh, naruñu ci daanuwaat ci campagne yi ñuy jëm notamment ci ci war jël waaw li may njëkk a wax moom mooy fitna moom fu mu mënti soqe ko euh, maanaam loolu dañ koy ñaaw fu di ko Euh, ak lépp li nga xam ne moo ko mën a sabab euh, ak ki ko sabab kooku dañu koy condamné ñaawlu ko parce que fitna moom amul place ci démocratie saa yu fitna taxawee rek ci démocratie moom mooy des principes yi nga xam ne ñoo ko sooxe nañ quelque part parce que démocratie buy dox moom euh, fitna amu fa place parce que ñàkk a déggoo foog mu am bañ a am foog mu am plutôt mënta ñàkk am mais amul benn bi nga xam ne war nañ ko réglé ci violence euh, loolu euh, par contre lu koy expliquer mooy li ma doon wax sànq rek maanaam Sénégal malheureusement dañu tàmbal que période électorale moom gis nañ ko day am ay incident violence ak yooyu loolu moom dafa nekk li nga xam ne day faral di am ci naam dañ koy ñaawtu mais mën nañ ko constater léegi nag comme dañoo tàmbali mbir moomu euh, ak déplacement beeg yooyu climat bi moo ñu installé waat ci donc genre événement yooyu mais encore une fois ak en tout cas lu ko mën a sabab euh, dañu koy ñaawtu dañ koy ñaawtu di ñaax aussi acteurs politiques yi ñu moytu lépp li nga xam ne mën na jur Euh, fitna euh, parce que chaque fois boo waxee fitna mooy dina am ay nit yi nga xam ne dañ ci am ay gaañu gaañu wala ay nit yi nga xam ne euh, dalañ ci loru et que loolu war lu mën a ñàkk la ci démocratie. lu aju ci candidature président Macky Sall société civile bi taxawaat ni mu taxawee woon 2011 est-ce que mun na am njeexital ba xëy na mu dellu ginnaaw ci bu dee dafa na représenté gëm naa ko gëm naa ko parce que ndaam Euh, donc waxoon na ni du nekk candidat euh, tëgg constitution bu bees euh, taxaw janook sénégalais yi ne julli bi ñaari rakk la bu paree pare na mënatuma ko dafa jékki-jékki commencé am xel ñaar xam xel ñaar bi loolu lu koy firnaal moom mooy dafa jékki-jékki naan du waaw du déet mais askanu Sénégal moom nee na du déet Euh, déet boobu tàmbaliwul tey 2011 la tàmbali ba nit ñi di xeex ànd ak moom euh, ba tax ñu fal ko ci falin bi nga xam ne moom lañ koy fale euh, peuple boobu ko doon bañ di ko naan déet ne déet Ablaye Wade peuple boobu ba sànq yi suba génnul Sénégal et que peuple boobu tey benn pàcc bi mooy effectivement acteur société civile bi ñi nga xam ne ñoo sànc initiative bi ci fan yi passé et que ñooñu ay ñooñam lañ ñoom la doon xeexandool même xeex bi euh, di bañ même mbir mi e ñooñu lu jon bañ fukki at ci ginnaaw moom la ñuy continuer bañ donc moo tax aussi il fallait ñu génn euh, wane seen bopp won ko ne yëglu ñu ngi e ñu ngi lay seet comme nuñ ko ko waxee ne ko bu ko sax jéem waxuñu ko bu ko def mais dañ ko de bu ko jéem dégg nga loolu nag moom bu dee am na dégg dana xam lu les waxul Euh, léegi nag buñ koy tënkee foofu euh, léegi mën nañ jàpp ni moom peut-être buñ ko dànkaafu noonu euh, dana delloo si xelam et ñu ngi njort en tout cas que dana delloo si xelam parce que loolu initiative société civile bi la mais nekkul mbiru société civile troisième mandat bi mbirum troisième mandat bi euh, demande sénégalais yi la woon 2012 et que loolu moo taxoon ñu fal ko xam na ko bu baax léegi bu ñëwee fii naan ñu euh, su ma waxee ne damay dem nit ñi duñu liggéeyati noonu déjà dafa jàpp sénégalais yi pour ay gone yu ndaw mais aussi ay collaborateurs am dafa jàpp ni ñooñu matuñu parce que collaborateur bu mat sëkk ànd ak yow nga xeex mu xam sa ngëm-ngëm xam sa pas-pas xam sa position mais kooku tey bu dee yow bu déggee ne doo dema du dematoo te mu xam ne yow jeexal nga dootul liggéey kooku ma ne la bu ko bàyyi foofu euh, jarul sax nga koy xaar deux mille vingt quatre jot dàq ko léegi parce que kooku lu ko fa bàyyi waxu lo ko. alors euh, deux mille dix neuf yaa ngi koy junj sànq li ci xewoon yëpp euh, fàtte xaj fi parrainage beeg yu bari di taxoon xëy na ñenn ñi ñu doon ndax loolu yéen koy sóor ci waaw euh, loolu ñun ñu xeex bu ñu tàmbali woon ba yàlla jox ñu ci ndam euh, ñu nekk ci dëgg ba tey ñu nekk ci dëgg Macky Sall wàcc yoon euh, te lànk ne du dellu si. loolu ñu ngi continuer woyal xeex bi mënuma toog nag di wax fan lañ ci toll mais jàpp naa ne fii ak deux mille vingt quatre mbirum parrainage bi moom Sénégal dana féete boor Euh, loolu buñ ko waxee aussi euh, lu ci tegu moom mooy li pousse acteurs yi ñu teel a tàmbali aussi préparation bi euh, loolu ci la bokk parce que bii passé comme nu ñuy wax ci olof ku lu ñuul rey sa maam boo seenee ndobin daw parce que tout simplement kuñ ko siqal xamuñu fu muy fële xamuñu lu muy préparé donc bi dafa xaar ba Euh, maanaam diggante bi jege si jàmp euh, mu génne yu bees teg ay galgal laataa nit ñi di comprendre sax nu muy dëppoo moom déjà élection samp woon na ba ñu bëri am ci loolu aussi moo tax nit ñi tey ñu jàpp ni euh, donc dañ mbirum parrainage war nañ ko mën a matal sëkk laataa sax Euh, ñuy fixer yaa ngi doon xeex parrainage bi dem ba ci CEDEAO yaa ngi koy xaar kon ñu indiwaat ko. non ñun man li ma jàpp gëm ko moom mooy parrainage du am deux mille vingt quatre. parce que avant loolu dinañu atte atte bu leer ak moom loolu moom dana am. mais li ci tegu comme li ma la wax maanaam ku ci nekk sa xel ngay demee lu tax aussi yeneen ñi ñu teel a ci mbir mi parce que jàpp nañ ni euh, mbirum parrainage bi euh, tey. da nga war a jël say matuwaay ba tey galgal yu ñu teg yëpp suba comme ni ñu comprendre nañ gis nañ gisaat ñoom fu ñuy jaar nit ñi loolu yëpp tey nga faggu ba nga xam ne suba kenn du la mën a jaar fenn loolu tey comme li ma la wax dafa nekkoon loi bu bees euh, donc daataa nit ñi ko comprendre parce que ni ñi dañu doon dem déposer seen dossier euh, ba nga boo déposer ba pare noonu lañ lay wax ne ñii lañ la nattee alors que yoon dafa war a wax dañ la teg dafa wax ne dañ la war a tegal li lay nattee ba daataa ngaa de mais yooyu yëpp euh, moo tax aussi tey comme li ma la wax candidat yi jàpp ne saa waay moom jeu bi pour moom loy loyalul lu muy def moom mooy toujours lu mu bettee nit ñi wala mu am ay coûts irréguliers loolu pousse nit ñi aussi ñu tàmbali teel donc jàpp naa ne aussi euh, parrainage ou pas euh, nit ñi dinañ dem élection. alors maître Tine ñu jeexal ak xëy ci lan nga nar a sukkandiku ba xëy na sénégalais yi jox seen baat ci deux mille vingt quatre parce que candidat yi njort lan moo la nar a wutale ak ñeneen ñi. waaw ñun suñu candidature lu koy wutaleeg yeneen candidature yi dafa nekk candidature bi nga xam ne euh, dafa tegu ci dëgg. Euh, tegu aussi ci mat mais aussi dafa nekk candidature bi nga xam ne dafa ñëw euh, ngir yóbbu Sénégal ci maanaam euh, en tout cas période bu bees candidature modernité la comme ni ko tubaab di waxee mais dafa nekk candidature bi nga xam ne lu ko tax a jóg mooy yeesal dëkk bi mais également jël nit jiital ko moom mooy lu tubaab di wax c'est une candidature de progrès euh, économique et social euh, lu tax ma candidature bi lu ko euh, lal candidature vérité la dafa nekk candidature bi nga xam ne dafa lalu cëslaayam ay valeur la ay valeurs yi nga xam ne ñun dañu ko mos a gëm di ko xeex mooy lan mooy dañoo war a wormal nit dañoo war a dëppoo respecter Euh, ponk ak yi nga xam ne mooy démocratie mooy état de droit maanaam dëkk bi nga xam ne euh, yoon moo ko lal mais également euh, dafa nekk candidature responsabilité moom mooy lan moom mooy tey dañu gis ne Sénégal maanaam yoon bu mu jël baaxul parce que wax nga ko sànq violence bi mu ngi continuer di yokku violence bi ñuy gis ci kër yi di ko gis ci sëy yi euh, violence boobu dafa symptomatique même euh, benn euh, malaise sociale ñu gis ne tey déggoo bi nga xam ne moo amoon ci biir Sénégal c'est ci biir Sénégal ci diggante sénégalais yi muy sénégalais yi nga xam ne bokkuñu waaso sénégalais yi nga xam ne bokkuñu gëm-gëm sénégalais yi nga xam ne bokkuñu fu ñu far politique maanaam déggoo boobu ma ngay continuer nërmeelu maanaam cohésion sociale baa ngi dañ euh, loolu moo tax ñu ne ñun candidature de responsabilité la parce que dañu ma jàpp ni fii ci Sénégal ñun lu ñu gëm moom mooy dañu war a continuer di dund ci jàmm ak lépp li nga xam ne mën nañu ko am muy pétrole muy gaz amul lenn li nga xam ne jar na ñu jaay suñuy valeur donc dañu commencer gis ne valeur yooyu ñu ngi koy perte te ñu jàpp ni fii pour ñu dëgg la foog nga violent foog nga wax li du nekkul dëgg loolu la ñu bëgg a xeex indiwaat mbir mi ci responsabilité mais aussi comme ni ma ko waxee sànq dafa nekk candidature bi nga xam ne nit la jël jiital ko moom la bëgg a teg ci njëlbeen ak ci càppandalu politique am man dama gëm mos gëm ni àdduna loo ci yëngu euh, ak nu mu mën a amee solo Euh, maanaam bu amul njeexital euh, pour nit maanaam loolu jarul dara man lu ma gëm moom mooy lépp lu ñuy def ci politique maanaam la koy sabab dafa war a nekk rek nan solo si moom mooy nan la ñuy fexe ba nit ñi nga xam ne tey ñu ngi dund euh, chaque fois seen dundin c'est en tout cas di gën a ñoŋe loolu yomb na yombut mais fii ci Sénégal sénégalais yi lu ñu yëtoo moom yomb na euh, moom mooy lan ñoom lu ñu soxla moom mooy feebar faju ñàkk jëriñu euh, maanaam ñu am xëy euh, am seen dëkkuwaay fu ñuy suturloo ak seen famille ñun yooyu mooy suñu axe prioritaire ñu ngi wax mbirum pétrole di wax mbirum gaz mais xaalis boobu tey nga xam ne moom la ñu yaakaar Euh, pour ci exploitation wu gaz bi Sénégal fii mosuñu jàpp ni dañ dem ba gis pétrole wala gaz yàlla bu defee ñu am loolu lu ñu gëm moom mooy dañu fa war a jaare définitivement euh, fii ci Sénégal kenn waratu fi dee parce que amul xaalis euh, loolu buñ ko bëggee mën nañ ko def parce que buñ ko defee priorité rek mu nekk ko man li ma gëm moom mooy ak ak yelleefu doomu aadama bu njëkk moom mooy droit à la vie euh, ku la boo feebaree ku la mënul faj euh, mais kooku bu la briguer émergence euh, maanaam bu ko gëm man nag gëmuma émergence depuis 2014 maa ngi leen koy wax emergence économie la la la jiital man lu ma gëm mooy opposé mooy convergence bi nga xam ne moom nit lay jiital maanaam pour xam ndax politique yi baax na mooy dañuy xool est-ce que ndax nit ñi tey nu ñuy dundee est-ce que moo gën a ñoŋee nu ñu doon dundee ya y a euh, loolu moo tax ñu jàpp ne euh, loolu la sénégalais yeyoo moom la askan bi di laaj et loolu moom mooy exactement li nga xam ne moo tax ñu tàbbi politique fu may jeexalee aussi moom mooy tey boo xoolee coalition bi nga xam ne moo fi ëpp doole du benn coalition bu dul coalition bi nga xam ne mooy deux millions et quelques sénégalais ci sénégales yi nga xam ne ci jour élection yi passé gisuñu ci seen bopp jaralu leen ñu ñàkk benn waxtu naan ñu ngi voté ñooñu ñoo yor doole ji dama jàpp ni ñoom foog ñu dellu si tey ñooñu bu ñu décidé que changement day am mën na am et ñooñu tey ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci langue bi demoon nañ voté ji ñooñu la ñu bëgg a convaincre pour ñu xam ne tey ñun programme bu ñu yor mooy programme bi nga xam ne bu dee yow euh, bëgg nga li nga xam ne dafa dëppoog dëgg euh, dëppoog responsabilité ñu teg ko ci yoon mais dox ko ci ngor Euh, ñoom dinañ ci gis seen bopp bu soobee yàlla. waxtu bi def nañu métti mais mënuñu bañ a wax ci da nga yaakaar ni yeneen i mbir yi fi jot a dañuy tudd ci mbirum armement bi sax moom la ñu ci bëgg a jaaree fomp très rapidement. waaw mbirum bi moom man dama jàpp ne rek dàqum ginaar wax sa soxla la nar nekk parce que tey ñoom euh, boo bëggee baal nit euh, mu ne bëgguma nga baal ma. Euh, nga ne ko da nga ko bëgg daanaka forcé mu ne damay dem tribunal ragg suma bopp dama bëgg raxas sama ginnaaw nga ne ko noo loolu wóorul di ko conseil alors que fu mu nekk tey problème yu mu am yëpp yaa ko teg mais dina war nañ la laaj yow lan moo ci laxasu ban intérêt nga am loolu dafa tax sama xel tey te boo jàppee tey ñoom li nga xam ne moom la ñu tuumaal Karim Wade ne daf ko def daanaka saa yoo yeewoo fi Sénégal moom la leen di tuumaal ba ñu toogee fii ba léegi am yàggul dara semaine ba le passé procureur ndaw génn ne moom sax laataa ñu ko dàq tàmbali woon na di gëstu déclaration au patrimoine huit milliards u Macky Sall yi ak yeneen donc loolu man dafa yóbbu en tout cas daf ma yóbbu ma am benn ngëm-ngëm que tey euh, donc euh, lu ñuy gëmloo Sénégalais yi euh, loolu Euh, du looloo tax tax a jóg du baale parce que bu doon baale da ngay baale ba mu amee sens da nga leen di baal laata élection yi di am au moins locale même parce que nekku euh, ci élection plutôt législative yi wala élection locale yi mais baale woo baale woo bay jeexal nga ne da ngay baale war nañ la laaj baale boobu lan mooy solo si beneen bi moom mooy ña ngay baal kenn tontu wala si kenn ki nee na la bëggul moom nga baal ko nga continuer da nga koy def en tout cas bañ ko defee man damay jàpp ni ñoom seen bopp la ñu bëgg a effacer parce que tey xam nañ ne fukki weer ak euh, daanaka ñeent léegi moo ci des mais que fukki weer ak ñeent euh, lu gaaw a gaaw la et tey effectivement euh, maanaam pro scandale yi am ci pétrole bi am ci dossier Prodac yi am ci sànq ci suba <laughs> wala ba am juma ci suba gis nañ eh, scandale yu bees yi yooyu tey ña nga xam ne en tout cas ña nga leen di tudd bu ñu toogee seen fit du daal léegi li ma jàpp moom mooy amnistie bi prox ndool la nar a nekk eh, boo mooy tuut en tout cas bu dee ñun souligné wuñu lii peut-être lu ñuy wax mën na tax ñu dellu ginnaaw mais man li ma jàpp ñoom comme ñoom nee nañ ay juriste tailleur la ñu woon lu ñu bëggoon a taaye moom mooy fexe ba suba bu ñu fi jógee kenn du leen mën a topp ci dara léegi fu may jeexalee nag moom mooy ba ñuy def ñoom seen grâce di baal Karim Wade waxuñu ko fen guddi lañu def lépp parax paraxe ko génne ko dëkk bi bu ñoom euh, justice wala rétablir Karim Wade moo leen tax a jóg mais ñu ko rétablir muy ab ay décisions yi nga xam ne dañ ko jox dëgg yooyu nañ ko jëfee buñ ko jëfee muy Karim Wade muy xalifa Sall coow li day daal di jeex soxlawuñu loi amnistie. jërëjëf maître Abdoulaye Tine amoon nañu mbégte dalal la ci matinale Rewmi FM. waaw jërëjëf Fatou mbégte la woon aussi jokkoog yow ci buumu jokkoo bi.